naafile yi nga xamanteni ginnaw ginnaaw jullik farata yi mom lañ ci wara a toftal ñu jëlé ko nak ci téré bi nga xamanteni ni khuratul ayni bu serigne Suhaybu Mbàkke ibnu khadim rasul mo wax ni tay di di juróomeelu guddik wéru koor na nga ci la ñent rakka rakka bu ci nek nga jang fatihatul kitab Ben alam nasrah ben yon jang ci itam suuratul ixlaas ñetti yoon ginnaaw boo jàngee faatiha benn yoon jàng alam nasarax benn yoon suuratul ixlaas nga def ko ñetti yoon ñeenti ràkka sëlmal wax na ni boo ko defee ci jataay bi nga toog sama borom dina la bindal yiw ku aj junni yoon waaye dina la bindal yiw ku umra it junni yoon te umra ga ñu nangu ko sama borom itam dana la musal ci ak ñàkk dana la itam yombalal sa wërsëg wax na ni képp ku ko def araf wu ci nekk sama borom dana ko soppi bind ñaari malayka yoo xamante ni danañ la faral say ñaawteef bindal la ay yiw wax na ni képp ku ko def itam sama dana yokk say daraja ba at mi delsi képp ku julli naafila itam sama borom dana la musal ci miti de te wax na ni itam booy dem di nga yóbbaale ngërëmal yàlla ah, kon nag muy la goo xamante nii li ci ne ci ay yiw bari na lool wax na ni itam boo ko defee ba dugg ci biir bàmmeel itam sama borom dana ubbil say bunt ci aljana ñu di la keral di la teral ba keroog bis kon nag loolu mooy naafila juróomi guddug weeru koor bi tombeeg tey jii du guddik samedi incha allahu rabbi ñaan yàlla yàlla na yàlla nangul sunu koor defal nu tawféexu àdduna ak alaaxira ñu leen di dox ah incha allahu rabbi rendez-vous suba ak jàmm ci naafila juróom-benni lu guddi weeru koor wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala